non mandataires yi candidat yi yàgguñu biir conseil constitutionnel fii ñu duggee fa la ñu génnee dañoo ñëwoon dong ngir ñu notifier leen recours yi nga xam ne ni ñenn ci seen biir di ay candidat ñoo ko déposé ngir rek ñu gàntal yenn candidature yi mu di recours yu tegu ci ndodd ñetti candidat kenn ki Bassirou Diomaye Faye la keneen ki Cheikh Tidiane Dièye keneen ki Karim Meïssa Wade. ci lu ñeel nag la nga xam ne moom la ñu tënk ci biir yi les recours mandataires yi mënaguñ see yee bi parce que c'est un bi nga xamante ni ay page la ay page dinañ dem lire ko ak suñuy avocat mais aussi ak suñu équipe. ki fi teewal candidat bu bennoo moom dong moo xuus ci dossier bi ñuy toppee ki di Karim Wade. Euh, liñ ci jàngat mooy moom ci boppam ci biir recours am euh, da cee basé wu ci ay fait ay fait yu leer yoo xam ne moom la euh, contenté wu ba ba def recours bi te ñun ñëpp mën nañoo jugé ne lu mu def. wala lu mu def lu mu bind c'est scientifique et c'est c'est vérifiable parce que juste ba le 14 fukki fan ak euh, ñeent ci mois bii ñu nekk ni Karim Wade moo ngi ci fichier électoral u France. si lu ñeel nag recours bi nga xam ne Amadou Ba déposé na ko tekk si ndodd Bassirou Diomaye Faye ak Cheikh Tidiane Dièye bile ponk moom nanguwu si wax. mais li ma leen mën a wax mooy ku nekk danga am sa mission. su ngeen posé question bi ki nga xam ne moo ko déposé woon maître yaakaar naa la leen jox ay détails. lii leer daal ba leer mooy Mouhamed Boun Abdallah Dionne ak Aly Ngouille Ndiaye amul benn recours bu ñu leen di toppee lii wuteeg lool xibaar yi nga xam ne nii jotoon na seen ay waxtu si ginnaaw. ni ngeen ko jotee noonu laa ko jotee tax amoon naa ci information yoo xamante ni bi ñu ñëwee ba ci conseil war nañ ñu daal amul benn recours bu ñu dugal. jëmale ko ci Mouhamed Boun Abdallah Dionne donc dañuy sant yàlla. bu ñu sukkandikoo sax si liiru sagum ci mbir mi ne nañ li candidat bu bennoo di toppee ba Bassirou Diomaye Faye ñeenti mbir la benn bi mooy bokk si ab parti bu ñu tas jébbal conseil constitutionnel ay pièces yu dëppoowul ak yoon bokkit si coalition boo xam ne dañ ko tëddalee jaarul yoon ak it ñàkk bokk si parti ak coalition bi ko investir.